yow ci côté télé bee kër yi. Mhm. ñëpp la xam. tu passes pas inaperçu. c'est vrai mais nga def ak moom di yow waa télé yi gën ko commencé xam muy suqali sénégalais yi. mu leen di woyal muy bëgg. Mm-hmm. mais mm-hmm. bu fekkee ku nekk da nga ne ki nga ëpp doole doo ko dimbali mais kon fan la ñuy musique fan lay fan lay demee. man moo tax ma ne la man esprit yooyu yëpp demeewu ma ko mun naa foo mun naa mbalak mun naa wax nii mun naa kii nii mais esprit macha allah bi nga xamante ni. Mm-hmm. moom la ma yàlla mooy mooy esprit di partager. looloo moom moo waral boo xoolee avant may génne album aw naa fi Titi aw naa fi Aïda sàmm awma ci benn rëy rëy wala loo xamante nii dama naan non ñii ñu ma woy wala genre non mm-hmm. def naa ko par par amour mais foog esprit yooyu dañ ci nit yi mm. aussi ñu bañ à chaque fois euh, public bi di leen di leen di leen influencer ci seen moromu nit yi mm-hmm. parce que à chaque fois bu jaxas-jaxas amee ci ñoom lay jógee mais artiste ak artiste ku ci nekk boo tegee sa njaganaay sa nopp xam nga xam nga bu baax kii sa màppandoog ki dul sa màppandoog loolu ab la ki lay duma ak ki la dul duma dëgg bu wér dara fay loolu alors waaw ñuy yeggale xam lan laa bëggoon dafa am benn son boo xam ne mhm. daf ma daf ma neex ba léegi boo xam ne Pape Birahim moo ko way muy son comme son bi Mat Pokora wayoon mhm. bi ñuy way naan yow yaay Tigane loolu laa bëgg nga ñëwal ma si tuuti sama bopp daf ma neex naturellement boobu temps booy la woon booy nga woon quoi. ndeysaan man ma boobu ñëpp ko bëggoon. <laughs> moo koŋ suur. ko bëggoon nga sama bopp macha allah jógee ci reggae ñu euh, parce que bi jógee ci reggae moo boobu ci laa xamante waa Prince Art. Mhm. bi ñu may woyloo woy boobu dama rusoon dama complexe parce que boobu bëgguma mbalax. ba bëggoon mbalax. non loo bëggoon waaye. non boobu reggae laa doon waaye. Mm-hmm. man artistes yu euh, jamaïcain yu mag yi ñi ñëw Sénégal yëpp mm-hmm. pour te dire euh, Richie Spice waaw mm-hmm. Richie Morgan Heritage ñëw nañ fi. Adjaman man ñooñu ñi joué seen première partie stade man ci laa bokk. ah waay ndeysaan ba ni may xamee Prince Art ñu woyloo euh, mbalax. waaye boobu daa mel ni Serigne Mbax papax la tuddoon. Serigne Mbax di nga koy woy après dama pare sërimbam dama pare sama gars na ma lu tax ngay dem di woy woyu fake yi wala genre ma <laughs> nga gis nga de banque rek <laughs> non mais way boobu non way boobu moom macha allah. way boobu dama xonetoon sax dama bànkoon ba ma xoolee ni ma jeexee woon nga xam ne daanu ma woon lekk. loolu moom bu ñu la tegoon way boobu ak nii moom dañ naa ñaari nit yu bokk bokkul mais est-ce doom si ñëwal tuuti. yow yaay lii gën a neex sama xol ndaw si. nopp naa la fu ne dem naa fa man gisuma leneen lu la jox ma kaw sa xol bi laa lay laaj gestu ma damay góor bu bari caaj dëgg wili dama bëri caaj dama bëri caaj am na am bëri caaj dama bëgg nga simple côté café nga nekk yow da nga mën a bàyyi ay wax ay simple ak ay kii ni <laughs> yéen yéen yéen ñii yéen ñii di ngeen wax ak kii ñii seetaan sax ñu ngi lay ñu ngi naan nee nañ dangaa bëri caaj nopp naa la bala muy neex ñu dem ba war a sëy ma la te ji booy di mag yow ci beneen teer say rongoñ daal feer ngay nooyi beneen air waxal non pas grève bi bii bii daal na bii moom dafa daal moom. en tout cas internautes ñu ngi lay bégee parce que ñoom it ñu ngi nekk di seetaan émission bi en live en direct ñu ngi nekk di am suñu waxtaan li ngay way yëpp ñu ngi koy cons uh-huh. ñu ngi lay poser ay questions questions yi dinaa si ñëw ci kanam tuuti. Uh-huh. je rappelle que vous êtes toujours en compagnie de émission côté café ngeen ci ànd ak Mita Thiam mais it ngeen ci ànd ak Aïcha. tey ñu dalal Pape Birahim borom Médina. Mhm. mais xam ngeen ne samedi bu jot ay Aïcha xam nga fi may bëgg ñëw dañuy dugal buzz de la semaine dañuy mhm. xool lépp lu xew semaine bi ñu dekk carte sur table mais tey père nekk fi donc Pape Birahim yaa présenté père lu ñu indi yaa koy commenté ñu xool sa fu mu toll. yaa jël place père tey waaw. ñëw leen gaaw. aca aca dawal ñu dem bari bëri histoire nag. père waaw da ngay jël bëri histoire si moom léegi yow ñëwal. Mita damay ñëw si buzz de la semaine mais Mita xam nga lan moo ma xam naa ne seetlu nga lool. Hmm. Mita bu ma commencé ba ñu commencé côté café ba léegi. à chaque fois damay andi affaire moor. parce que Sénégal moo doy waar Sénégal moo moo doy waar léegi vraiment. Mita damay débuté le buzz de la semaine fële ca Thiaroye. Euh, hmm. sur mer gis nañu une fille de vingt ans. euh, au nom de Ndioba Seck mm -hmm. a mhm. été tué ba pare dañ ko li gën a garaaw mooy Mita mhm. rey bu ñaaw lañ ko rey dañ ko jam 64 coups de mhm. couteau ba pare sànni ko ci jàkk buntu jàkk te ba tey mënuñu ne kii moo ko def ñu ngi def recherche effectivement elle est jeune en plus elle a que vingt ans ñu rey ko rey bu mm. ñaaw man rey bi nooy rey nit ba di ko di ko kii ci jàkka di si jàkk en fait c'est quoi le nga jël nit ki rey ko yóbbu si jàkk c'est la question ko tout le monde se pose en plus moom elle a une fille de quatre ans. oh là là la gis sunu dëkk bi. ah dëkk bi en bu ñu xamee ne ñu ngi ñuy gis nga étiquette yi ñu daan takkal tappal yenn dëkk yi. Mm-hmm. damay dem fii ñu naan dañuy reyee. bu ñu ah, ñu takkal ñu wóoree ne ñu ñu koy tappal rek muy suñu jàmm. te loolu dara jaru ko. c'est clair c'est clair. te aussi man man c'est c'est grave quoi yow da ngay sax jaaxle. mais chaque jour da ngay dégg rey dama naan est-ce que ñiy def loolu est-ce que ay doomu Sénégal lañ. mais ñi ñu si jot a jàpp yëpp ay sénégalais lañ. waaw mais mais parce que da ngay def la naan da nga naan. Euh, sénégalais lan moo waaw lan moo leen changé. Mm-hmm. ba ñu am genre mentalité boobu léegi rey nit. Mm-hmm. mais léegi da ngay sax tiit léegi da doo sax ñemee génn. sécurité doo xam koy wóolu amatul ñi ci war a wax waxuñu ci ah. franchement man li ma war a wax waxuñu ci. franchement te pourquoi waxuñu ci wala dafa am lu ci louche wala je sais pas. te li ci gën a grave mooy da daan toog dégg benn décès dégg nit rey nañ ko nga toogaat lu yàgg déggaat ko mais léegi chaque jour. ko jëfee da ngay dégg ay rey parfois ci journée bi di nga dégg ñaari rey. Mita euh, am na ay saltige saltige yi moom xam nga à chaque fois rek bu dara amee dañuy daal di génn mhm. ñoom nag nee nañ Sénégal tant que deret bi ñu leen laaj mhm. ci si animal yi tant que tuuruñu ko nit yi ci boppam deretu nit yi ci boppam mooy tuuru donc loolu xaw ma nag <laughs> ñoom dañ ko wax pour le buzz xaw ma mais nee nañ ce n'est que le début du commencement ça veut dire que ñuy wax aliment lañ laaj ñoom ba pare li si gën a garaaw nee nañ euh, lii début bi la bu ñu demee ba ci kanam mooy raw kon nag ah xaw ma kan moo si war a jóg mais war nañ si jóg nag franchement. waaw man tey maa dem nekk Ivoirienne. ah Mita affaire yi garaaw na de. te maa ngi ñëwaat ba tey deuxième point bi damay ñëwaat encore ci Mor damay dem fële ca Kolda gis nañ ni euh, xale bu jigéen buy wuyoo ci Yoba Balde. Mhm. a été tué par son mari moom nag temps yële lañ fekkoon koor bi. mu mm-hmm. séparé wu genre dañoo ren dañ ko rendi séparé bopp bi ak yaram bi bi enquête yi génnee gis teg nañ loxo jëkkër ji gis nañ ni jëkkër ji moo ko def moom mu ngi tudd Ousmane Balde moom moo rey jabar ji d'après nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ñoom mm-hmm. nee nañ ñoom suñu juboo ñoom ñaar ci xuloo lañ dëkk mais ba ci rey jabar mi taa comme li ma doon wax rek léegi ci boppam sëy si boppam dañ doo ci ñemee dugg léegi man man loolu moo tax ma ragal sëy de góor yi ñuy reyee seen jabar yi c'est trop booy sëy nga dem sëy ku gëm gëm yàlla mhm. nit bu am diine am mhm. l'islam parce que am diine du këpp këppal il faut avoir la foi la foi en Dieu mhm. mooy que nit bi xam lan mooy valeuru nit doomu adama ci côté jox ko cër ci côté may leen jàmm ki sax mooy nit ki da leen war a boo dee jullit piir dangay may nit ci jàmm dëgg la ci seen der ci seen alal ci ñàkk xam ci ñoom Euh, seen dund di ci dugg te xamuloo ci dara. Mm-hmm. bu ngeen di sëy dama ngeen sëy ak jullit ku ragal yàlla ku jàng alxuraan ku xam li yàlla wax. Mm-hmm. da ciy baax de. mais Pape boo xoolee euh, ñi ñu jotara yépp bu ñu bu ñu bu ñu laajtee seede dañ naan kii ki ko ki ki reye du sax rey mbóot. et wax la ngay dégg dafa jullite dafa jullite non non affaire du question de ay ay ay du wax du kii ñu dul wax ñoo fi gën a dangereux xam nga ne la noppi noppi. Mm-hmm. sagu ku dof la. dafa gis nit bu noppi. nga bëgg ko waxloo ku la li nga koy waxloo mun na ko wax wala xam na ko. mais damay dégg mag ñi naan sëy chance la parce que booy dugg si nit munoo ne xam naa ko carrément munul nekk. nit munoo ko xam. tant que yéen ñaar dëkkoo leen. nga nit ki mënuloo ko xam mais nga nga nga nga ñaan yàlla suñu borom. parce que comme dëkk bi mais ci génnee. comme dëkk bi non non non comme dëkk bi léegi tas. da ngay ñaan yàlla. Mm-hmm. yàlla musal ñu rek yàlla musal la boole naa ku baax parce que gis nga bu fi toogee naan la ay non nit ki dafa war a mel ni nit ki mu mel ni que mu mel ne yow mënoo ci xam. dara parce que doomu mm-hmm. aadama dafa lëndam. dafa lëndam léegi suñu borom mi nga xamante ni dafa ne adoon nii. Mm-hmm. astajib lakum nee na ñaan leen ma ma may leen nañu ñaan yàlla rek ki ngay yàlla di booleel mu nekk nit bu baax mu nekk nit bu jullite mhm. jullil fajar di ko ñaan mhm. mitaa li yëpp li koy gën a andi mooy euh, ñi nga xam ne dañ leen di dóor ñu naan leen toog leen muñ boo ah. xoolee li si ñu si bëri ñu ñu rey dóor yooyu ñu muñ moo andi rey bi mais tamit nag xam nga seytaane dafa bëri doole parfois seytaane dana dugg foo xam ne mm-hmm. xaju fa. Mm-hmm. parce que nit ki nga jël moom ba takk ko leer na ne kooku bëgg nga ko parce que sëy c'est pas donné à tout le monde te sëy du caaxaan. Mm-hmm. te dañoo nekk ci dëkk boo xam ne quatre vingt pour quatre vingt quinze pour cent c'est dañu dëkk boo xam ne dañu xam dañu gëm diine dañu am diine dine la ñu xam. donc c'est vrai que ñaaw na parce que da ngay dem ba da ngay ragal. te ñëpp nee nañ fi nga dëkk rek nga mën a ñeme fi nga dëkk rek moo dàq donc boo dee fi nga dëkk yow actuellement tu te sens plus en sécurité. Mhm. parce que ñu war a def seen liggéey amaana defuñu ko ñu war a def seen def seen liggéey ñu ngi koy def ou pas gisuñu ko parce que rey yi ba tey chaque jour mu yokk chaque jour chaque jour chaque jour da ko wax léegi nii début émission bi depuis bi ñu commencé côté café chaque mhm. samedi. Mhm. ñu am plus de deux rey. Pape Birahim ah, mais yàlla nañu ci yàlla rek loolu kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara yàlla dimbali aar ñu mais kenn mënu ci dara. yow doo policière man du ma keneen du kenn mënu ci dara yàlla nañu yàlla sàmmal dëkk bi Mita am jot naa jege benn xale bu góor laaj naa ko avis am ci loolu. Mhm. nee na xale jigéen léegi dañoo saf làmmiñ